يلاه بالمصطفى سندي يا الله ومي خليلي كريم رحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم لي mooy téereb sëriñ tuba biñ naan fiila tambule bisimilla imaki tambule ci yalla arahmani kay aji xiiwal ci addina ñakoy jaamoo ko sant ak a gërëm ak ñako dul jaamu duñ ko sant duñ ko gërëm arrahimi te nara xiiwal ci ajjana ña ko doon jaamu doon ko sant doon ko gërëm yal nañ ci yàlla boole wa sal allahu yal na yàlla doli taraanga ak jàmm allah sayidina ca sunu sang ba mohammadin mohammad wasalama te mu yokk musalam ga yallaahu yow buur bi bil Moustapha ci darajaay ku ñu tànn ka sindiidi tey capitaine bi yonent ya njiit la yallaahu yow aji màgg ji nguur maa ngi lay ñaan man xaadimu rasul wa bi xalilika ak ci darajaay sa xarit ba ibrahima yonent yàlla ibrahima yallaahu yow buur bi man ahmadu bamba maa ngi lay ñaan wa bi kalimika ak ci darajaay ka daan yow muy yonent yàlla muusa saalihin ak ci darajaay yent yàlla saalih xadirin ak ci darajaay sang ba ñuy wax xaadir wa bi suhaybin ak ci darajaay yent yàlla suhaybu wa ismaila ak ci darajaay yonent yàlla ismaila yàllaaw yow aji màgg ci nguuru man ahmadu bamba maa ngi lay ñaan wa bi suleymaana yàlla suleymaan noohin ak ci darajaay yonent yàlla nooh yunusa yunus Ilyasa ak ci darajaay yonent Yàlla Ilyasa wa Zakariya ak ci darajaay yonent Yàlla Zakariya Yahya ak ci darajaay yonent Yàlla Yahya Hooda ak ci darajaay yonent Yàlla Huud yàllaahu yow aji màgg ji nguur man xaadimu rasulillahi maa ngi lay ñaan Haaruna ci darajaay yonent Yàlla Haaruna Yuusaha ak ci darajaay yonent Yàlla Yuusaha Ilyaasin ak ci darajaay yonent Yàlla Ilyaas wa Adama ak ci darajaay sunu maam yonent Yàlla Adama daawuda ak ca jaay yonent yàlla daawuda wa zilkifli ak ca jaay yonent yàlla zilkifli isa ak ca jaay yonent yàlla isa loota ak ci jaay yonent yàlla loot yallaahu yow aji màgg ci nguur man xaadimu rasulillahi maa ngi lay ñaan wa yusufin ak ci jaay yonent yàlla yusufa wa bi isaaqin ak ci jaay yonent yàlla isxaaq wa xayrihimo ak ci jaay gaayu baax yedut ñoom min anbiya in bokk ca ñañu solo wa ruslin ak ñañu yónni nga xam ne yaa leen yónni wa ruslin ak yonent ya nga xam ne yaa leen yónni yow làkka yow buur bi yàllaahu yow aji màgg ji nguur man xaadim rasulillahi maa ngi lay ñaan wa bil malaiki ak ci darajaay malaika ya turan mboole seem suma safwatihim topp seen sàppe sa jibrila ak ca jaay yon ki nga xam ne mooy ka nga daan yónni muy jibril suma bi mikail ak ca jaay malaayika ma ñuy wax mikail yàllaaw yow aji màgg ji nguur man xaadimu rasulullahi maa ngi lay ñaan wa bi saahibi ak wa bi saahibi ak ci rajaay ka nga xam ne yaa ko jox ndigal mu yore bufta ba narkoowal waxtu waxtu wa jotee malayka moomee nga xam ne yaa ko jox ndigal mu téye bufta ba tanar koo wal israfila te ñu di ko wax israfila ak ci rajaayu malayka ma nga xam ne xaabidi arwaahi moo téye ruu ya nga xam ne alxalaiqi mooy ruu i bindeef ya asraila te ñu di ko woowee asraila yàllaaw yow buur bi man ahmadu bamba maa ngi lay ñaan wa bi sahabati ci darajaayu sahaba ya sumal awliya i topp ci darajay waliyu ya maan mboole seem wal amilina ak way jëfaa kon ya jëf yu baax ya minal ahbaari ca fóore ya yàllaaw yow aji màgg ji nguur man xaadimu rasul maa ngi lay ñaan wa bi siddiqi ci darajay seydina ababakar sadiq wa bil faaruqi ci darajay seydina omar ma nga xam ne moo tàqale dëgg ak neen suma bi sinurini ak ci darajaay borom ñaari leer ñu di ko wax Usman bunu afaan nga xam ne yonent bi may na ko doomam ju ñuy wax zaynab ak roqaya kenn ka daa faatu mu wutal ca ñu wax ni abi sibtayni ak ci abi top ka nga xam nyari mooy baayu ñaari sëtu rasulillahi ñu di wax sayna ali yonent bi mayoon ko doom ju ñuy wax mu am ca seynu ak asan ñooy sibtayni yàlla yow aji mag ji nguur man xaadim rasul maa ngi lay ñaan bi malikin ci darajaay imam malik sil mazaya kay borom ngëneel ya saafihi ci imam saafihi kooke tamit ñu di wax imam saafi muy wali mag te bind ci téere yu bari téere xam-xam ci darajaam abi anifatin ci darajaay imam abi anifa ahmada al mahmoud ci imam ahmad kay ko ñu sant yalla yow aji mag ci nguur man khadimu rasul ma ngi lay ñaan bilawhil mahfuz ci aliway mahfus, fofu da ngay taqdim wal qalima ak qalimaga suma bi arsika ak top ci sa aras ju mag jojo al azimijai jay ajiri Wabil kursi ak ci darajay kursi yalla yow bur bi man ahmadu bamba ma ngi lay ñaan wa bil qur'ani ci darajaay alqur'an wa bi tawriiti ci darajaay téere ba ñuy wax tawreet da nga wàcce woon ko ci yont yàlla isa suma bi ma jaa ak topp ci darajaay téere ba nga xam ne dikke woon nga ko daawudu yont yàlla daawudu muy zaboor bi téere boobe di zaboor dikke ko yont yàlla daawuda war ruuxu ak ruuxu yàllaahu yow buur bi tey aji màgg ji ngóor man xaadim rasul maa ngi lay ñaan maa ngi ñaan balix yal na nga jotale salaati samay julli wa taslimi ak samay sëlmal alayhi ca yonent ba loo ñeel ko wal aali ak ñoñam wa sahbi ak sahaba ya wa sahbin lañ bind nag ak sahaba ya wal aswaaji ak i soxnaam yàllaaw yow aji màgg ci ngóor man ahmadu bamba maa ngi lay ñaan wasbilan na yal na nga jotale alayna fi nun rabbi yow sunu boroom yal na nga jotale fi ñun aafiyatan jàmm wa hëpp te yàlla na nga nu may lanaa ñeel nu alxasda ak jub ak jublu fa yow fi daaree ni ci yaari kër yow aji màgg ji nguur waftax lanaa yal nag nu ubbil ku la baabin bépp bunt kunta bopp nekkoon nga fatihahoo di ko ubbil li saalihiina ñeel woy baax ya minal xayraati ci aw yiw yàllaaw yow buur bi man ahmadu bamba maa ngi la koy ñaan wasluk bi naa yal nag nu sóob nax jorus din ci yoon wu jub xoj wak fi te yal nag nu felal zalalan ay fakastalu wattut lana te yàlla nu dàqal al jinna mbooleem jinne ya wa saytaana ak saytaane ya yàllaaw yow aji mag ji nguur man xaadimu rasul maa ngi la koy ñaan maa ngi ñaan wa kàmmilan yàlla na nga matal kullama lépp loo xam ne nan xoo jublu na fi nun wa naqsaduhu te tanu jublu ca loolee wahab te yal nu may wahab lanaa yal nu may kullama lépp loo xam ne naxtaaru tànn nan ko yàllaaw yow aji màgg ji nguur warut yal nag nu falaxeel lanaa ñeel nu warut lanaa yal nu falaxeel ku la si saxabin képp kuy boroomi jafe wa si aranin ak képp kuy boroom ak karate di dogalee wa sarri wa yessiran yal na nga yombal kula si tax siiri lépp lu jafe woon yàlla na ko yombalal te nuy jural ngërëmal yàlla yàllaaw yow aji màgg ji ngóor tawil yàlla na nga guddal lanaa fi nun umranaa dund saxi yow sunu boram yàlla na nga wéral lanaa ñeel nu badanan sunu yaram wa te yàlla nag nu may lanaa ñeel nu rusda ak jub wa taw feexa ak lu dëppook sa ngërëm yow yàlla yàlla nag nu dëppaleeg lu nuy jural sa ngërëm yàllaaw yow aji màgg ji ngóor man Ahmadou Bamba maa ngi la koy ñaan nga defal nu ko ci sunu jëmm ji ak dongo yeeg taalibe yi ak mbooleem jullit wa dammiran yal nag nu alakal ku la ahda in bépp noon boo xam ne tudduri bu naa def noo bëgg a lor xablal wusooli lanaa lu jiitu muy jublu fi nun dinu lor si yàllaaw yow buur bi aji màgg ji nguur yàllaaw yow mi nga xam ne yay sunu borom maa ngi lay ñaan lool yi man Ahmadou Bamba wa kun yàlla na nga nekk lanaa ñeel nu aasi man nga ñoŋal nu min kulli maxlakatin ci lépp luy alake wa najjina te yàlla na nu aar min balaaya ca balaaya adahra diirab jamono yàllaaw yow aji màgg ji nguur wa aafatin yàlla na nu aar ci ay gàkk-gàkk aahatin yàlla na nu aar ci feebaru mbas maxoosatin ak faagaagal ga xam ne day bàyyikoo ca feebaru mbas mehanin ak i nattooki coono ya nga xam ne dina ko jur sal salzalatin yàlla nu fegal ay rëng-rëng siddatin yàlla nu fegal tartari jamono wal faqri ak ak ñàkk yàlla yow ak ji màgg ji nguur ihanatin yàlla nu fegal ak doyadi xillatin yàlla nu fegal ak niiw ak ak niiwle mazillatin yàlla nu fegal gàcce xalabin yàlla nu fegal nooteel wafaaxatin yàlla nu fegal ak ñàkk atasin yal nu fegal aw mar wal jooxi ak ab xiif yàlla yow aji màgg ci nguur wa nu dàqal fitna wal loba ak wal arxi ak ayu lakk ma xaraqin ak ayu lap ci ndox wal barxi ak ayu melax ak i dënnu ma saraxin ak ayu sàcc wal keddi ak coonoy addina yàlla yow aji màgg ci nguur yal nu aar ca yooya haarin nu aar ci ayu tàngoor wa bardin ak ayu sedd wa nax bin ak yàqu-yàqu kurbatin ak lépp luy njàqare aku niqamin ak i métit métit dalalatin ak ak réer arajin ak wal xammi ak naqar ak tiis yallaaw yow buur bi yàlla nu fegal yooyee wahaamatin yàlla nu fegal ñaggi-ñaggi xol waxataaya ak i ñaaw téef dalalatin ak ak cànk zalalin ak i rëng-rëng wal masqi ak ak soppeeku wal xas fi ak gàcce sumal xas fi ak ak ak ak ŋàññante yooyu yëpp yal nag nu ko fegal yàlla yow aji màgg ci nguur wa qullatin yal nag nu fegal aw maral mahjunonin yal nag nu fegal ak ndof illatin maradin ak paralysie yaa nga xam ne ma ngay tukkee ca tawat ya sumal jusaamay ni yal nag nu fegal tawat sañuy wax kurabët ak siti mooy sumal jusaamay ni mooy tawati siti ak tawati kurabat wa nuxsaani ak tawat yoo xam ne day jur cër yuy wàññeeku mën naa doon ngaana sax yàllaaw yow buur bi yàlla nu fegal yoo wa min xabiyaati dunyaal yàlla nag nu fegal mbooleem bon boni àddina suma axirati ak mboolem bon boni àllaaxira rawatina nag ak dem sawara wa min fuduhima yal nag nu fegal mboolem yaari gàcce ye muy gàcce ak àddina ak goog àllaaxira yow buur bi aji màgg ji nguur yallaaw tey borom sañ-sañ ba noo ngi ñaan loolu nga fegal nu ko man Ahmadu Bamba maak njabar geeg taalibe yeeg dongo yi yaa man yaay ki nga xam ne ala koweel na kulla say in mépp mbir xaajirun ci sa kattan wa ala arsi te koweel nga aras al asimi jay ajirëy istawa nga yemale ko fala soob bil xaari ci sag noteel yàlla yow mi aji màgg ji nguur inni naka man ahmadu bamba sa'altuka maa ngi lay ñaan xalban nga moolaale ci saa xol bi xaasiyan ak ragal yàlla mutawadihan ak ak toroxlu wa ilman ak ab xam-xam kasiran bu jari bu bari nafi tay jariñe yallaaw yow aji màgg ci nguur yal nag ma nangul wa tawbatan qubilat yal nag ma nangul samak tuub mahminatin mahmiknatin rufiat yal nag ma may ay daraja yu kawe ma zawjatin salluhat yal nag ma may ay soxna yoo xam ne selle nañu bi diine ci diine yallaaw yow aji màgg ci nguur wakun yal def moy sandino ar lana ñeel no min sari si asadin ci ayu aji iñaan max sari min ak ayu gemmiñ wa saril ayni ak ayu bët yalla yow aji mag ci ngor wa sari sirin ak ayu kat wa saril khalqi ak ayu mboolem bindef ya insi mo mo xam nit ñala ma jinnahum ak jinne ya wa sawati yalla no ar ci ayu wuy jur ak ñàkk noyyi lu mel ni asma ay wuy gar sunu nokki ba du nokk ba du nu nokki nanu war a nokkee yàlla nu aar ci ay woowee zummi yàlla nu aar ci ayu tooke ak poson yàllaaw yow aji màgg ci nguur inni naka man ahmadu bamba jaaltu ko def naa la yow sunu boroom fii dayri ni ci yaari këy ci ka yaari kër yi yaa si xat yi yaay saa ndëgër laay is nan yal na ma may ak ñoŋ asi nan ñoŋ guy ñoŋalaate fakkun yal na nga nekk mal jaaya di saa wéeruwaay yallaaw yow aji màgg ci nguur wala tàkkil nii bul ma bàyyeeg ilaa nafsi may wek sama bopp rek fakkun yal nag ma def ahlika ma bokk ci sa ñoon mu jiiba ne yal nag ma wuyu ay suma adduhooka saa suma la ñaanee saa suma la wooyee yallaaw yow mi aji màgg ci nguur wàccal yal na nga def lisaani saaw làmmiñ waxal bi ak saab xol saakiray ka ñu di la sant maa xam boole séem indal mana indal mamaati ba ca waxtu waxtu woowee nga xam ne maa ngay faatu jànkoonteeg sama fan yi jëkk ci àllaaxira di dund fan ya mujj ci àddina ba booba tamit yàlla nga def saa xol bii ak saa wi ñu di la tudd di la sant di la bakk di la kañ ba waxtaw sukuraat maal imaani nu ànd ak gëm yàllaaw yow aji màgg ji yalla yàlla nga ko defal sabbit yàlla na nga saxal yàqinee sama ko wóolu fii xal bii ci saab xol bilaa wajali jin bilaa wajalin ci lu jot njàqare atta ohiba ba ma mujj bëgg sax li xaaka dajeeg yow al aq yow mi aji dëgg ji yàllaaw yow aji màgg ji nguur wàcc xal yal na nga def lii ñeel ma almawta deega raatin mu ànd ak ab nooflaay wa mafrahatan mu ànd ak ak feex ma feex nag min kulli sarin ci wépp ay yal na ma sori wa karbin lépp luy njàqari yal na ma sori daaxa lépp luy ay xat-xat yal na ma sori yàllaaw yow aji màgg ji nguur maa la koy ñaan man Ahmadou Bamba yal na ko def ci njaboot gi taalibe yeeg dongo yi wax fas yàlla yal na nga wattu liye ma al jism yaram wa ay suróowu saa soo xamee ne rooga fa faaraxanii tàqalikoo naak man ba nga xam ne fil xabri nekk na ci biir bàmmel moom yaram wa laa tubli yanu yalla boo ko nattu addaxara diirab jamono yàllaaw yooyu yàlla yàlla nga wutul yaram ba bu nekkee ci biir bàmmel yàlla boo ca teg ay nattu yow sunu boroom wakkun yal nga nekk nasiri di saa ndimmal anisi yal na nga nekk saa wéttal ina ma defanoo waxtu woo xamee ne suulees na gis mi saaw yaram fa surtout ba mu mujj waahidan di fa kenn ca biir bàmmeel ba sàmm foofee yal na nga ma fa wétti yal nga ma fa wéttili ma fa dimbali yallaaw yow aji màgg ji nguur laatal mu man na bu ma bàyyi may gàddoo maa ngi ànd ak sama bopp rek maa ak lépp loo xam ne xat yoraawi wuni daf may tiitloo bul bàyyi may weeg saa bop rek bay taseeg lépp lu may tiital bal lu fi nekk ik fi yan ma fegal kullama lépp loo xam ne ax saa u ragal naa ko yàllaaw yow aji màgg ji nguur wa najji nii yàlla nga ma aar wa jamil muslimina te yàlla na nga aar mboolem way gëm ya mahan mboole séem wa najji te yàlla na nga aar wali daati saa yaari way jur amina yàlla na nga nangu yàllaaw yow aji màgg ji nguur wax lana yal nag nu jéggal walaha te yal na nga jéggal maam jaara wastur maha ibana te yal nag nu suturaal sunuy ayib waltuf bina te yal nag nu ñiwante yal nag nu yërëm wa biha ak maam jaara fil awli ca tiitam bàmmel ma yallaaw yow aji màgg ji ngóor tajaawasi yal na nga jéggal anha maam jaara wa iyaana ak nun arhamana yal na nga wàcce sa yërmande ci sunu kaw fama lana siwaaka amunu kudut yow tawa anta yow yàlla albarru yaay aji baax ba yaay aji baax ja yàllaahu yaay aji màgg ji nguur fii barsaqin ca barsaq maa xabrin ak ca biir bàmmeel ba kon yal na nga fa nekk wasaran di yiir di aar di muur di yiir di laq lahaa maam jaara nang ko laq wa najjite yal nang ko aar min kuróobin ci lépp luy njàqare wa xawfin ak ci lépp lees di ragal yàllaaw yow aji màgg ji nguur amin laa taxtabir haa bu mu yëg moom maam jaara bi maa ci loo xam ne laysat bi qaadiratin amul kattan nag loole nga xam ne la ko cay fekk ci naqar bu mu fa yëg dara loo xam ne amul kattan nag yanu loolee bu mu gis lu ko diis bu mu gis lu ko tiis bu mu gis lu ko naqari bu mu gis benn dis dis moom maam jaara moo tax mu ne laa taxtabir haa bu mu fa yëg mukk bi maa ci loo xam ne lay set bi xaajiratin dëppoowut ak kattanam dara lu koy jural ab diis diis bu ko maam jaara yëg wala tuqaay yëpp rajaa te yow yàlla yalla boo tas yaakaari maam jaara fii ka yaakaar ja xam ne maam jaara am na ko ci yow yàllaaw yow aji màgg ci nguur wala tuqaay yëpp yàlla boo tas rajaa yaakaari maam jaara fii ka ci yow yàlla yàllaaw yow aji màgg ci nguur wasxinaa yàlla nag nu nandal maaha nook maam jaara min maa i kawsari man ci ndoxam kawsara ma nga xam ne ixtartuhoo yow sunu borom yaa ko tànn nga tànnal ko man ka nga xam ne kaana nekk na yursidu aji jub min jamil xalqi ak ku mu ci man di doon nag ci bindee fi yalaaw yow mi aji màgg ci nguur da nga tànnal ko ndoxam kawsara moo mi nga xam ne tànnal nga ko ka xam ne mooy aji jub ci mbooloo mi saa xayin kay boroom ak beew nag wasaa kufrin tey boroom ak weddi yoxli ko nar nañoo dajeeg sa alkande yow sunu borom tamit wayan suru yaay aji dimbalee ja man ka xam ne yax saaka ragal na la yal na ci yàlla boole yàllaaw yow aji màgg ji nguur muhammadin muhammad maska yi kay nga xam ne moom lay tudd al axyaari mooy tànneef qaidina mooy aji omat sunu li jannatil xuldi ba ca àjjana ya nga xam ne mooy saxuwaay loolee nag ma ngay am yowmal asri keroog bisab dekki ba yàllaaw yow aji màgg ji nguur yàlla nu boole ci xeetu Seydina Muhammad yàlla nu boole ci mbooloom Seydina Muhammad nu ànd ak moom ba àjjana amiin alayhi yàlla na nga wàcce teraanga ak jàmm ci ca Muhammad yàlla nga ca wàcce teraanga ak jàmm moo tax mu ne salli yàlla nga dolli teraanga ak jàmm alayhi ca Muhammad wasalim ta nga dolli musalam nga daa iman ba faw daa iman ci lu sax abadan ba mukk maanaam ba faw yal na nga dolli teranga ak moomu tamit yal na ko dolli wa man ak ca ka nga xam ne xafawu ma ngay xenc Muhammad yal na ko ca boole loolu nag yàlla bu mu dakk di am li yow mil diini ba keroog bis penc yàlla yow aji màgg ci nguur subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiina dafa am bind wu naqaree ñaari bind yoo xam ne yaari woy yoo xam ne dañoo naqaree firi mooy fii mu waxe ne wasxinaa maa min kaw kawsari man foofu boo ko dégloo ci waxtaan wi boo koy firi da ngay yéeg di wàcc moo tax mu naqaree firi yéenti bind yi boo koy firi dangay ngay yéeg ak wax wasxinaa yal nag noo ànd yal nag noo nandal maam jaara min kaw kawsari man ci ndoxam kawsara ma nga xam ne ixtartuwoo tànnal nga ko Muhammad ak képp ku topp Muhammad min jamil xalqi ci mboolem bindeef yi yalaaw yow aji mag ji nguur ña ko topp nag man ka nga xam kaana nekk na yor sedu di aju jub waaye nag ka nga xam ne saa xayin ak bew la wa saa da ngay jël waa googu yóbbu ko ca del ju tooy jële wa saa kufrin ak ka nga xam ne ak weddi la yoxliku nar sa alkande yow borom bi tamit wayan suru yaay dimbale man ka nga xam ne yax ragal na la yalaaw yow aji mag ji nguur ba mu ci waa kër Mohammed te nar a xéewlu ca ndoxam Kawsara moomee nga xam ne bokk na ci dexi àjjana ya te Mohammed moo ko moom ak ña ko toppoon yelan ci yàlla nandal loolu mooy téere bu ñuy wax Sindiidi ki ko doon firi nag mooy seen mbokkum taalibe ñu di ko wax Cheikh Mbacke Ndiaye taalibe Serigne mbake Gueye ca Ngàcc moo ko ne baaba ne ko bàyyil non ci siyaare bu baax moom sunu Serigne di siyaare rakk ja Serigne Amsatou Gueye di siyaare rakam sëriñ Cheikh Mbacke Guèye di siyaare mboolem sëti sëriñ maa bi te di leen ñaanal xéewal ak jàmm ak yokkute noo ngi sàkku nag képp ku dégg téere bi nga ñaanal nu nu tegu ci lu nuy jural ngërëmal yàlla ak lu nuy jural ngërëmal sëriñ Touba ak lu nuy jural ngërëmal sunu sëriñ sëriñ Mbacke Guèye ak mboolem ku bokk ngàcc noo ngi siyaare ngàcc di siyaare ñëpp képp ku aju ci ngàcc noo ngi lay siyaare di leen wax nag sunu numéro téléphone. mooy 76 684 12 04 76 684 12 04 ci képp ku nu bëgg a gàgganti foofu la ñuy mën a jote wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alayhi salli wa sallim daiman abadan wa man xafoo li yow mi